الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد mbokki jënd yi déglu émission xalifa diine ak leen di di as yéene incha allah tontu lenn ci li nga xam ne ay laaj la baayam dootuñu ba yàpp wow nee na su ko deful mën na ko yàqal liggéeyam la war a def li nga xamal nag mooy ab jullit moom euh, dafa bokk ci sart wut liggéeyam mu xam la ne moom kat ci ñu fiy jaay te mu xaram moom du ci mën a du ci mën a liggéey wala li sax su xamante ne restaurant ba moom loolu lañ fay jaay te itam moom ku kuñ ko jël ngay jaay dañuy jaay lépp da nga ko war a jaay mu bañ a liggéey foofu te wuti liggéey wala boog mu xamal leen condition boobu ne kat moom kuy jënd lu araam moom du ko mën a def waaye nag dëggalul ci moom muy jaay lu xaraam ndax alxuraanu karim suñu borom dafa wax ne bu leen dimbalante ci loo xam ne day jur bàkkaar day jur ak dëngte te ba suñu borom tabaaraka wa taala tere mu yàpp woowu xaraam am koo xam ne moom day beer bopp wala daa gëmul yàlla war moo xam ne woyefalal nit jàppale nag rek ci sa doxiinu bopp amaa woy juróom moom la la yàlla miraasee doom ñett doom yu góor yooyu cër ba mu am daal xëy na neexul ñëlu ndax jàpp nañ ne ñoo ko ëppi doom ndax bu boobaa moom ñetti doomam yooyu day tolloog borom juróom moom ñoo ko tolloone borom juróom ñetti doom yi nag moom moo ko ëpp li mu ne daal miraas moomu ñoom neexu leen euh, ñu dem yóbbu mbir ba tribunal pour nga koo jot muy laaj nag moomu ci taxawaayu lislaam li ci taxawaayu lislaam de mooy su fekkente ne séddalewaatee sax loolu sax kenn du ko tudde miraas tribunal moom du miraas day séddale rek bu ñu ko séddalewaatee séddale boo xam ne euh, dañ leen a yemale boobaa kat dañ yëg ne ñoom ñu ngi lekk àq yi jirim ñu ngi lekk àq yi euh, jirim ndax suñu demee ba xañ euh, ndaw sa am doom yu góor ya la mu waroon a am yemale koog doom yu jigéen ña boobaa lekk nañ àq ay jirim lekk ak alali jirim su borom tabaaraka taala wax dafa wax ne ñi nga xam ne dañuy lekk alali jirim ci ak tooñ dañu xam ne ñu ngi lekk neneen li muy mooy danañu wàññi àllali